Daí dá uma ne ñoo ngi leen sant ba baax di leen gërëm. Ah, di nuyu bu baax autorités yi nga xam ne ñoo fi teew ci biir jotaay bi. tàmbalee ko ci monsieur le maire Mouhamadou Lamine Thiam Faye. di baax préfet bi nga xam ni yàlla dogal na moo nekk ci biir département bi di taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw na ko ci cant gi ngir lépp lum ci war a yombal it yombal na bu baax ak commissaire Fall mii nga xam ni yàlla dogal na mu nekk ci police bi di sant bu baax commissaire Fall ak Diop secrétaire am ak lépp loo xamante ni si ni aju na ci wàllu sécurité bi lépp lu mu ci man rek def na ko. commandant gendarmerie it ñu ngi koy sant bu baax. Eaux Forêts it ñu ngi leen di sant bu baax ci wàllu matt mi lépp it yombal nañu ko ci lépp loo xamante ni si ni soxla nañu ko. sëriñ bi ne mi ngi sant bu baax directeur Ousmane Cissé ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ni si ni sëriñ bi yitte yi mu nekk woon ci ginnaaw yépp euh, Ousmane jàppale ko ci bu baax a baax a baax a mooy xel koom gi nga xam ni sëriñ bi ànd naag dongo yi ak taalibe yi ñëpp dem si jamono yee ñu ñu ngi koy jaarale ci Serigne Ahmad Mbacke mii nga xam ni sa xarit la sa wëllëre la nuyoo beeg siyaar bi lépp mi koy jaarale ci Serigne Ahmadouna Mbacke. ak mboolem ñi nga xam ni ñoom nga àndal ñoom ñépp gis nañu seenu taxawaay ci bis bi. di sant bu baax Cheikh Ibrahima Kébé. soxna Amina Diagne moom it koy sant bu baax. di tëjëbu it Baye Moussa Sylla Serigne Cheikh Gora Sylla sëriñ bi ne bis bii nag bisu diine la bisu lislaam la li waral ndaje mi dafa am lu ci daan xew sëriñ bi ne xam ngeen ni miin nañu 31 décembre am na lu ci na a miin te it nag Kébémer gi 97 jëm ginnaaw 31 décembre bu daan jot fu ne la leen daan jóge di fi ñëw di ko màggalee ci geneen fànn Cheikh Abdoul Karim ñëw fi nii lii fi sama maam defoon li fi fekkoon mooy diine ju rab ak taxawaay bu matul ci diine ji lépp Serigne Touba di ko fay jëlee moom nag fii bi fi ñëwee ci àngal bi ñu nekk nekki ni fi fekkoon lépp da ko fay jëlee ngir bokk nag ci sët ya nga xam ni moom la maamam Serigne Touba si Ahmadou Bamba doon tudd te di ko ci biir loolu. ñu ngi ciy siyaare sunu waajur wi toog di soxna Faati Ali Cissé ci ab taxawaayam ndax lii day ab liggéeyam moo ko liggéey te kër seen waajur wa Cheikh Moustapha kon tamit soxna bu nekkee ci kër dafa war a nangu te doonu taalibe te mën a muñ ngir njabootam ëllëg ndax soxna teraanga ji sax borom këram du ko defal doomam moo ko koy defal soxna bu nekkee ci bu doomam màggee ñu xam nan dafa fa kon bind boobu sëriñ bi ne mi koy jox mboolem soxna su fi nekk nanu xoolaat sunu bopp bu baax seen diggante ak seen borom kër yi nee li ci war ci ay teggin ci ak déggal sa borom kër ci ak nangul sa borom kër jàppale sa borom kër nan koy def ndax soxna rek la sunu borom may bu amee borom kër bu am ngërëmal sunu borom bu ko borom këram gërëmee bu faatoo dem àjjana تسورة النساء أمنة القرآن تبيني نقبل القرآن فريقنا يكون لون ننتي ما يخل ببا نخ أدنجي أمون صلو وينك أمن صلو نخفني جم يوم الخيام في لني جلي لني في جريو نخ fii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar wan ñu yoonu lislaam Cheikh Ahmad Bamba jaar fi wan ñu yoonu murid ak mbooleem tariixa boo xamante ni bii mi ngi ci biir réew mi yépp di ginde yépp di ay yoon yu jëm ci sunu borom te yoon woo ci jaar àgg ci sunu borom sëriñ bi ne kon nañu bàyyi xel fi ñu nekk. di xam li ñu fi indi te bàyyi ñu fi loolu nag ku koy bàyyi xel da nga xam ni nga fi nekkee léegi nii sëriñ baa ngi koy wax ndax ne suuf daa mën a muñ loolu la ñuy bañantoo ci kaw suuf loolu la ñuy nekk ci kaw suuf suuf ni nekk muñ rek xam ne lu yàgg-yàgg li ngay war ci kaw suuf gis dana ma sa ñëw suuf war ci sa kaw sëriñ bi ne ko nag bis boobu bu fekkoon ni ne ko woon ci lu baax wala nga ànd ko am gërëmal yàlla foofee nga nekk mën naa gis yow lool sëriñ bi ne kon nañ ko bàyyi xel bu baax te it nanu jàppante nanu yërëmante nanu dimbalante ndax adduna adduna dafa xat te dafa sew ni ñu fi mën a dimbalee ci ak yaatal mooy ni jàppalante yërëmante dimbalante ba lépp loo xam ni nii nit yéene na ko boppam yéene ko moroomam sëriñ bi ne lépp lu nit di xëccoo nit wut yàlla noppi na lépp kenn ku mën a doon loo mën a bëgg te nga ñëw fii ngir jëmmi yàlla ak Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba ak jëmmi Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi nga xam ni moom moom la ñuy waajal bisam bii ca Mbacke Kajoor di ginnaaw suba. nga xam ne dafa mel ni guddik Cheikh Abdoul Karim mii ak waajtaay la ci màggalu Mbacke Kajoor. bisu Mbàkke Kajoor boobu ca la Cheikh Ibrahima Fall amee woon ngërëm ci Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Cheikh Abdoul Karim jël bis boobu jëmmale ko nag waa Njabi Fall kon loolu du asaar cër la bu yàgg a yàgg Serigne Bara ak Cheikh Ibrahima Fall yàgg na loolu Serigne bi nee na kon. kenn ku ci nekk lii sa warteef ak sa taxawaay mbir mi bu mu yàqoo ci say loxo na nga fexe ba na ko téye na ko sàmm ba te ko say nano ndax lii kat ñi fi jiitu woon ñoo ko fi sosoon téye nañu ko ba mu agsi ci ñun ñu sëriñ bi leeri ki rek ba mu wàtte ci loxo nan ko jàllale ba mu jàpp ci suñuy sët sëriñ bi nee na waxtu wi eh, gis nañ taxawaay bi nga xam nit ñi am nañu ko ci ci bis bi ak yéen gi ñu ci am yëpp sëriñ bi nee nañ xam ni sëriñ Abdul Karim mii ndaw la lu jóg tegu nag ci yoonu siraatal mustaqim fas yéenee nag jaar ci yoon yoo xam ni ca la maamam ja jaaroon ay baayam jaar ca ndax ci memeer gii Cheikh Mouhamadou Baara amoon na fi kër am na fi wàccukaay gee Sëriñ Abdoulaye Sis Baara am na fi kër am fi wàccuwaay fii ci escale fi Sëriñ Ahmadou Mbàkke nekk mooy juróom Sëriñ Moustapha am na fi kër muy foofee ba léegi kon nag sëriñ Abdul Karim dafa xentu na tànki baayam ya bi ñëwee fekk ñu andi ko fi mu nekk ci noonu mu nekk na ku dégg ndigal te nangoo toppee nag te it ne bëggul dara ndax tey jii ci bëccëg sëriñ bi ne bi muy ñëw ni ko maa ngi ñëw moo ne ko nag danoo war a yendu si waaye nag ku nekk yàlla du ko cëral bis bii sab cër la Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moo la ko fàggul sa jëf la na ko taxaw te it nag danañ la ci jàppale taxawal la ci képp ku ci ànd ak yow ñoo ànd ak ku la gis yataan ñu maale ci moom Serigne Abdoul Karim mii noo dox sëriñ bi ne sëriñ Mame Bara ne sëriñ Abdou Karim mii noo dox digganteem ak léppam lépp luy dal ci kawam danañu dox digganteem ak loolee jàmm rek tawfeex rek bul tiit bul ragal na nga di jàpp te xam fa nga jëm lii sëriñ Mame Bara ko wax seere la bisa ngi ci kanam lépp dana leer jërë ngeen jëf sëriñ bi ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, sëriñ bi ne noo ngi ñaanal bàyyi ma lisi la ak sëriñ ma mbay mbay ak ak soxna Kébé Seck ñooñu nga xam ni ñoo fi bàyyi ko yàlla na leen yàlla yërëm te jégal yàlla la fa yàlla defal tawfeex sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëriñ bi ne mi ngi sant waa Xidmatul Xadim bu baax ci seenu taxawaay di sant bu baax waa Xidmatul Xadim àngalub sëriñ Fallou ci njiital sëriñ Demba Ñang ci ab taxawaayam ci ab yëgam ci ay yitteem ndax lii buñ ko gisee ak organisation bii ak taxawaay bii na nga xam ni taxawaay bu wér am na fi yal na sax yal na yàgg li ngeen fi wut yal na leen ko Serigne Touba defal li ngeen fi wut yal na leen ko Serigne Bara defal yal na leen yal na yàlla saxal ci njub teg ci yoonu siraatal mustaqim musal ci say mu fan jëm nu àgg fa wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëriñ baa ngi ne ñi ngi leen di woo yéen ñëpp ci màggalu Mbàkke Kajoor gi insha allah rabbi sëriñ bi ne sëriñ bi ne dañoo yëkkati alxuraan ji cërale ko ko kon lépp lu ci waaye man nga def ko ku ci man salaatu ala nabi boo mënit nga def ko ngir yàlla jëmi sëriñ Tuubaa ak jëmi Seex Muhamadu Bamba sëriñ baa ngi ñaan ne kilifa yii sëriñ bi neen ku nekk yaa xam ni ngi wut si yàlla na sunu borom def li gën ci yow te gën ci ñëpp barki borom Tuubaa sëriñ bi ne ngeen tàllal nu ñaan nu yebbi yi noonu nag nu def si nag màggal guddi gi ba asamaan seen incha allahu rabbi bismillah amin amin Mbacke amin amin amiin Mbacke amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin danañ ko téeméer déwén loolu defar yoon bi kilifa yi mën a jàll. kan